délégation bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou moom la yebal fii ci réew Mauritanie ñu ngi wéyal activités yi nga xam ne moom lañ fiy amal ci njiitalul Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr at mu jot fii ci réew Mauritanie dañu fiy amal màggal goo xam ne ñu ngi ko dëppee màggal Sarsara Sarsara di bërëb bu sori lool capital ba di Nouakchott nekk ci digg désert bi Serigne Touba jotoon faa nekk ci jamono yi nga xam ne mi ngi nekkoon ci réew Mauritanie ndax sëriñ bi mi ngi nekkoon ci réew mi ci diggante 1903 ba 1907. wérdul maqoos bi nga xam ne mooy wérdu yoonu murit sëriñ Touba mi ngi ko jotee ci bërëb bi nga xam ne moo di sarsaara mu bàyyeekoo ci yàlla suñu borom jaar ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam. wérdu woowu le sax sëriñ bi jotoon na koo jox ay taalibe yu bëri fii ci réew Mauritanie muy ay sénégalais yoo xam ne dañ fi daan fekk si sëriñ bi ba ci ay taalibeem yoo xam ne ay mauritanien lañ. bërëb bi nga xam ne moo di sarsaara jamono yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi fiy nekk bëri na mag ñoo xam ne dañ daan bàyyeekoo Sénégal di dox ñëw di fekk si sëriñ Touba di ko ziyaara si leen nit ci ak njabootam nekkoon nañ fi ak moom ñu demee ni ki sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke sëriñ fàllu ak sëriñ Basiiru bëri na ci it ay xasida yoo xam ne sëriñ bi mi ngi ko taalifee ci fii ci réew Mauritanie bokk na ci xasida gu siiw gi di wakkaana xàqan réew la it moo xam ne sëriñ bi wax na ne yàlla da ko fi indi ngir fay ko ginnaaw natt yu mag yi nga xam ne teg na ko ko ci diggante 1895 ba ci 1902 ci réewum Gabon. Mauritanie nag di réew mu fonk lool Serigne Touba yaataloon ko ci diirub ñeenti at yi nga xam ne moom la fi def. ndax Serigne Touba wax na ci mbindum boppam ne sant na yàlla mi ko tàggatal ay ñu ko jàppale ñu ko taxawu te bokk ci bànnu day maan at mu jot nag taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réew Mauritanie ci njiitalul Serigne di Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada ànd kook mboolem communauté mouride bi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di ay sénégalais ak ay moritanien dañuy amal màggaluk sarsaara gi. atum 2021 bi nag dañu ko gën a yaatal amal yeneen i activités yu bëree bëri yokk ko ci yi nga xam ne moom lañ daan def. cérémonie bu mag bi nga xam ne moom lañ daan tëjee exposition yi nga xam ne moom lañ daan amal moom lañu soppi ren ji def ko ab forum bu mag boo xam ne dañu ko amal ci teewaayu kilifa yi réew Mauritanie ak délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci Touba ci njiitalu Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke Bachir. forum bi ñu ngi ko amalee ci palais des congrès bi nga xam ne moo nekkee ci capitale bi di Nouakchott ñu tànn ci thème bu am solo di jàmm ci njàngaleem Serigne Touba. ak ni mu ko jëmalee woon communauté mouride bi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di ay mauritanien ci wàccaayu forom bi dañ cey def liggéey bu am solo lool muy lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum organisation ak matuwaay ñu jël ko ngir mbooleem gan ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw ci forum bile ñu mën leen a accueillir waaye teg leen ci bërëb bu mucc ayib. conférence bi nag Serigne Mbacké Abdourahmane di boroom xam-xam bu mag bokk ci délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci Touba moom moo ko doon amal. waaye amal nañ fa cérémonie bu mag boo xamante ni ministre bi nga xam ne moo yor wàllum lislaam ak njàngaleem cosaan ci réew Mauritanie moom moo ko présidé. di alxaadida wuldu siidi Omar Taalib teewal fa président réew Mauritanie di Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani nguurug Sénégal it am na ñu leen fa teewaloon. bokk na ci ambassadeur bi nga xam ne moo teewal réewum Sénégal ci Mauritanie di Moustapha Ndour ak yeneen i ambassadeur yu nekk ci réew ma di bu Yémen Maroc Tunisie Gambie ba ci Palestine ñoom ñëpp teewee nañ ndaje mi ànd kook boroomi xam-xam yu bëree bëri yoo xam ne dañoo nekk ci réew Mauritanie. kon mbokk yi ñu ànd ak yéen fii ci palais des congrès bu Nouakchott ci forum bu am solo bi nga xam ne amal nañ ko fii ci tëjteelu màggaluk Sarsara édition 2021 ñu tànn ci thème bu am solo di jàmm ak ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba jàngalee ak ni nga xam ne noonu la ko jëmmalee woon.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 ibnu Cheikh Ahmed Bamba على غرار معاهد الأزهر الإسلامية في السنغال هذا المجاهد العظيم الذي لم يبقى تبقى دولة إلا وزارها ينشر فيها الإسلام ويؤسس فيها المساجد ودور التدريس ومحاضر القرآن أدعو أخي شيخ إبراهيم قي من أنصاري من دائرة أنصار دين الإسلام السنغالي الشيوخ الكرام السفراء الأعزاء ممثل السفراء الحضور الكرام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julli di gannaaw bi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen nuyoo lislaam ci jotaay bu tedd bi jotaay bi ñuy amal ngir tëj programme mu màggal Sarsara 2021 te teewaayu Cheikh Sidi Mbacke Mourtada ak ki nga xam ne mooy porte paral di sëriñ Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir ñu ngi leen di daral jàmm fii tàmbali programme bi ci njëkk a woo Serigne Morlo ngir mu ñëw lim mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo ajoon ci fédération bi jàppoon ci liggéey bi. Ah, kuréel bi nga xam ne ñoom la yàlla nattu ñu nekk ci dëkk bi muy fédération bi ak daayira yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal boobu ba léegi ñu ngi koy taxawee di ci dox ay yitte ak i jéego ba mu agsi fii mu agsi tey fédération bi nag dafa nekk dàtt boo xam ne rek dafa boot ay daayira yu baree bari daayre yooyu nag kenn ku nekk day jël yitteem ak jamonoom ak lépp def ko ci liggéey bi moo tax ñu boobu ba nëgë waajtaay weeg lépp fédération bi ànd ko ak mbooleem daayira yi ci nekk ci dëkk bi ak seeni njiit ñu di ci dox di ci wax ba liggéey bi agsi fii mu agsi daayira yooyu nag bokk na ci daayira nuuru ni bu ligsaar njiital Baye Majaw Jaw daayira nuuru daareeni Arafat sëriñ Moodu Touré daayira nuuru daareeni Kuufa sëriñ Mor Fall waa kër sëriñ Masamba ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel bis bii sëriñ Abdoulahi Sëy waa kër sëriñ Daaru Asan Njaay Ousmane Jaw waa kër sëriñ baara muy daaira mu nawirul bunyaan sëriñ sëy waa daaru xudduus baay moodu géey waa kër sëriñ fàllu sëriñ ngañ jóob fulkul masxoon jaañ saw jësbul murit ahmadu moom sëriñ saaliwu safinatul amaan baay moodu géey tey siirul asir rijaal sëy diiwaanu xasida useynu mbóoj waa kër borom tuubaa ndonga jaw mafatixul bisri mustapha sarr daaira maam jaara ligsaar soxna joor fall daayira maam jaara cinquième soxna Faat Diop waa kër Serigne Mbacke Madina Serigne Ibrahima Sarr waa kër borom daarul mooti Moustapha Thiam waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babacar Sëy sopp sëriñ Fallou Biram Diaw sopp sëriñ Fallou Basara Pape Mbay waa kër Baye Abdou Salaam Ndiaye Yaali Ndiaye muwaay bu naafe Abdou Wahab Fall wala xadd karam naa Babacar Diouf Wasila Trobo Amiro Diop mat la Matlabu Fawzeyni Moustapha Sarr daaira Seexul Xadiim Seex Mbàkke Mbay Touba PK Sëriñ Móodu Muxaddamatul Xidma Yoro Diop Xidmatul Xadiim Lixaar Omar Dieng Xidmatul Xadiim Daara Naim Jibril Touba Noir Sok Ibrahima Jenn ñii ak daayira yi nga xam ne xëy na tudd ñu leen ak mbooleem taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi te bootu ci fédération bi ñoom ñoo taxawal bis bi di liggéey liggéey bi ba mu agsi fii mu agsi nekk mbooloo moo xam ne nag ñi ngi topp ci ginnaaw suñ siidi di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem lépp lu mu leen sant ci liggéey bi ñu def ko ci nam leen soobe lépp lu mu leen tere itam ñu bàyyi ko kon ñi ngi sant mbooloo mi yépp di gërëm ñëpp te xam ne daayira yooyu ñoom ñoo ànd ak sëriñ bi di liggéey liggéey bi ba mu agsi fii mu agsi waaleykum salaam wa wa barakaatu al wafdu muraafiq li cheikh mohamadul basir anatax rasmi al-aam li tariqa al-muridiya al-cheikh Mahmadan Mbakke nu cheikh Abdul Ahad cheikh Mariam Mbakke nu cheikh Abdul Karim ibnu Serigne Bara Serigne Mbakke Abdourahman al imam al wazir cheikh Abdul Ahad Mbakke Gaynde Fatma raisu lajnati al-i'laam Màggal Tuuba Serigne Moustapha Jatra mudiru maktabatu Tuuba Serigne Chouaibou Kebe baaxis wa kaatib maître Diop sëriñ Alxaaji Ja sëriñ Murtada Busa sëriñ Ahmad Cheikh Dieng Saalum Dieng sëriñ Masamba Mbàkke Cheikh sëriñ Mbàkke Diop sëriñ Muxtaar Jaxate haulaai shuyuuxul kiraam hum alladina raafaqu Cheikh Muhammadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir wa nuraxibu aydan بالسفراء الموجودين في هذه البقعة أو في هذا المكان waziiru safiir Gambia safiiru Yaman safiiru Palestine mumassil almustashar li safiir Algérie almumassil walmustashar li safiir Maghrib almumassil walmustashar li safiir Tunis almumassil walmustashar li safiir Iran kon mbokk yi ñoo ñoo teew ci jotaay bi kilifa yu tedd yooyu ma tuddoon ànd ak sëriñ Bachir Abdul Xaadir ci ñi ma mu sëñ Mahamadan Mbàkke moom sëñ Abdul Ahad sëriñ Cheikh Mbàkke sëriñ Cheikh Mariama Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Karim ibnu sëriñ Baara sëriñ Mbàkke Abdurahmaan imam ak su le ministre sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma président communication màggal Touba sëriñ Moussa Diatara mi jiite maktaba bibliothèque Kaamil sëriñ Chouaib Kébé di gëstukat di bindkat maître Diop sëriñ Alxaaji Dia sëriñ Moutala Boussa sëriñ Ahmed Saloum Dieng sëriñ Massamba Mbacke Cheikh sëriñ Mbacke Diop sëriñ Mokhtar Diakhaté ñoo ñu ànd ak sëriñ Bachirou Abdoul Khadir ambassadeur bu Gambie teew na fi ambassadeur bu yeman teew na fi ambassadeur bu Palestine teew na fi conseiller ambassadeur bu Algérie teew na fi conseiller ambassadeur bu Maroc teew na fi conseiller ambassadeur bu Tunis teew na fi conseil ambassadeur bu Iran teew na fi kon loolu mooy ak al wazir li al islami bi Mauritania. Monsieur le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Cheikh Mohamed Bachir Mbaké, porte-parole du Khalif général des Mourides, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, cher collègues ambassadeur membre du corps diplomatique Cheikh Sidi Moutada Mbaké représentant en Mauritanie du Khalife général des Mourides distingués invités tous chefs religieux chers amis frères et sœurs en l'islam chers compatriotes assalaamu aleykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir à l'occasion de cette cérémonie qui revêt une grande importance dans la relation entre le Sénégal et la Mauritanie. J'y reviendrai. Je voudrais ensuite au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, souhaiter à Cheikh Mohamed Bachir Mbake, porte-parole du Khalif général des Mourides, la chaleureuse bienvenue ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne et lui dire combien nous sommes à la fois honorés et très fiers de l'accueillir en terre mauritanienne. Je remercie vivement le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Da Ould Sidi Ould Amar Taleb, pour l'honneur et l'amitié qu'il nous fait de rehausser de sa présence cette cérémonie qui marque la clôture d'une semaine culturelle riche en événements ponctuée de plusieurs temps forts. À cet égard, je veux mentionner l'exposition au Centre culturel régional de Nouakchott, les conférences débats, la ziara à Sarsara, le tout célébré sur le thème La paix dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette cérémonie est donc l'opportunité de tirer un premier bilan des activités menées. À ce sujet, j'estime que nous sommes en droit d'être satisfaits pour de multiples raisons, mais je voudrais seulement en mentionner trois. D'abord, l'objectif principal visé a été atteint, à savoir perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, Khadimou Rasoul, serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivre ses pas et faire bénéficier aux talibés des grâces du fondateur du mouridisme sur le site de Sarsara. C'est aussi une occasion pour la communauté mouride de se rappeler le séjour de cinq années, de 1903 à 1907, de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie, au cours duquel il a reçu le wird mouride. Nous pouvons dire qu'après 17 éditions, que le Magal de Sarsara a pris de l'envergure. Il accueille chaque année un nombre croissant de pèlerins. Il figure désormais en bonne place dans le calendrier des événements religieux. Ce succès, nous le devons à la mobilisation, au dynamisme de la communauté mouride en Mauritanie, avec à sa tête Cheikh Sidi Moutada Mbaké, représentant du Khalif général des Mourides en Mauritanie, je voudrais saluer son engagement et lui exprimer tous nos voeux de succès dans l'accomplissement de la noble mission qui lui a été confiée. Dans ce même sillage, j'aimerais, au nom du chef de l'État du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, exprimer notre profonde gratitude aux autorités mauritaniennes pour toutes les dispositions prises et les facilités accordées ayant permis le bon déroulement de la semaine culturelle. Mesdames, Messieurs, le deuxième point de satisfaction réside dans la pertinence même du thème retenu pour cette édition 2021, à savoir la paix dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. un thème qui est d'une brûlante actualité dans un contexte où l'islam est souvent associé à tort par certains à l'extrémisme violent. Je ne vous apprends rien en disant que l'islam, par ses enseignements et sa pratique, a toujours été et reste une religion de paix, de tolérance et de respect du prochain. Une religion qui, en tout, prône la sagesse, commande la modération et la coexistence pacifique entre les communautés. C'est la voie suivie et enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un homme de paix. Sa vie pourrait servir à elle seule de base d'enseignement et d'éducation à une véritable culture de la paix. Il a su à merveille faire face aux autorités coloniales sans inciter à la guerre ni à la violence. Il avait fait le choix de la non-violence, mais de la non-violence d'essence divine. Sa vie et son œuvre sont entièrement fondées sur un idéal qui est la quête permanente d'Allah. Aujourd'hui, le défi pour la Oumma islamique, c'est de promouvoir les valeurs authentiques de l'islam, de faire connaître le vrai, le vrai visage de l'islam face au radicalisme, mais aussi contre toutes les dérives islamophobes. Enfin, le troisième motif de satisfaction, à mon sens, c'est la contribution de l'événement au renforcement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie, au rapprochement et à la compréhension mutuelle des peuples sénégalais et mauritaniens, frères et amis. Comme vous le savez, entre le Sénégal et la Mauritanie, tout nous unit. L'histoire, le voisinage, la religion, l'amitié et la parenté. Ces liens séculaires ont précédé la naissance de nos États modernes. Il nous revient aujourd'hui de nourrir et d'entretenir ce tissu relationnel qui traverse les âges et transcende les générations grâce à Allah. C'est dans ce sens que s'inscrit le pèlerinage de Sarsara. Dans cet esprit, nos deux chefs d'État, son Excellence M. Macky Sall et son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouadi, qui entretiennent des relations de confiance, d'estime et de, de considération réciproque, ont su insuffler une dynamique nouvelle à notre partenariat. Ils partagent les nobles idéaux de promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Ils sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire des relations entre nos deux pays. Ils ont, dans ce sens, engager nos deux gouvernements à travailler main dans la main pour relever les défis communs dans un esprit d'amitié et de solidarité. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez noté, le mouridisme à travers le Magal de Sarsara constitue un trait d'union et même mieux un patrimoine commun au Sénégal et à la Mauritanie. Cet événement a besoin donc d'être soutenu et renforcé pour en faire un rendez-vous religieux incontournable. Je rends hommage au parrain de cette édition, Cheikh Massamba Mbake, frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour transmettre un message à nos compatriotes résidents en Mauritanie en les invitant à rester unis et solidaires et à toujours garder à l'esprit qu'ils sont avant tout les premiers ambassadeurs de notre pays ici en Mauritanie, notre terre d'accueil dont nous devons respecter les lois et règlements en vigueur. J'aimerais maintenant conclure en formant des vœux ardents de paix, de stabilité pour le Sénégal et la Mauritanie, car sans la paix, il est illusoire de parler de développement. Sans la paix, rien n'est possible. Puisse Allah, dans son infinie bonté, répandre ses bienfaits sur nos deux pays et sur toute la Oumma islamique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi السيد الناطق الرسمي باسم الخليفة العام للطريقة المريدية السيد والي ولاية نواكشوط الغربية السيد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين السادة أصحاب السعادة السفراء السادة المشايخ والأساتذة الباحثون الكرام أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة العلماء والمشايخ الفضلاء أيها الجمع الكريم إن الرؤية الإسلامية العظيمة في مجال السلام والتعايش بين البشرية على هذه الأرض هي حقا رؤية فريدة تحتاج الكثير من الدراسة والتحليل من طرف أهل الاختصاص لاستكناه طبيعتها وخصائصها من ناحية ولتزويد شباب الأمة وأصحاب المنابر والتأثير فيها بنفس علمي من جهة أخرى إن دينا يدعو إلى البر والقسط مع مخالفيه ما داموا مأمونين من المقاتلة في الدين أو الإخراج في الدين أو الإخراج من الديار لهو دين يقدر بحق قيمة السلام والسكينة والأمن العالمي ومن هنا كان أعلام الأمة الذين رفعوا لواء الإسلام وحملوا تعاليمهم إلى كل أرجاء الأرض نموذجا في بث روح السلم والسكينة والوقار والربط على قلوب الناس بالخير والعطف والوداد ومن هؤلاء الأعلام الشيخ الخديم أحمد بن بخادم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كرس حياته لتأليف القلوب ونشر الإخاء وقيم الفضل والسلام ولذا قال في كتاب الحكم إن السلامة والعافية في الدنيا وفي الآخرة يتولدان من نية الخير وقول الخير وفعل الخير وملازمة أهل الخير أيها السادة الكرام إن هذه الندوة التي تقام اليوم لاستجلاء هذا الجانب في حياة الشيخ وتذكيره ومم... في حياة الشيخ وتذكيره وممارسته لهي ندوة تتشرف بها هذه البلاد التي تشرفت زمنا بوجود الشيخ على أديمها وتتشرف وتشرف أهلها بذلك الارتباط الوجداني مع الشيخ وأبنائه الكرام ومدينته طوبى التي أنشد فيها أحد أكابر الشعراء شعراء هذه البلاد أمنت من الخطوب أتيت طوبى ويا من من ألم بها الخطوبا فطوبى للذي دفنوه فيها وللشيخ الخليفة منه طوبى فلا غدرا أخاف ولا ألاة من الدهر الخؤون ولا قطوبا أيها الإخوة الكرام إن هذا المشهد اليوم من مشاهد الوصال الحضاري والديني بين الشعبين الشقيقين في موريتانيا والسنغال وهي مشاهد يحرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على تنميتها ورعايتها ضمانا لاستمرار تاريخ مجيد من التواصل حافظ عليه الأجداد منذ قرون من الزمن وأخيرا أعلن على بركة الله افتتاح هذه الندوة متمنيا لأعمالها التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور كريم نبذة قصيرة عن حياة شيخ مصمم مكي اسم الشيخ سيدي مكي مرتضى أنعم الله كون الوجود وأضعفهم رمز الكرم والجود في ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان عام 1300 وعام 1301 هجرية موافق عام 1880 ميلادية بعد رحيل والده والتحاقه برفيق الأعلى الشيخ مامور الدسلي مكة بسبعة أشهر كالمصطفى صلى الله عليه وسلم wa tasharrafat qaryatu Patar qurba Njaañ almaarufa fi iqlim Louga bistidaafati haada dayf alkarim ixtaara Allahu li Cheikh Massamba waalidayni karimayni yantamiyaani ila usratayni ariqatayni fi lmajdi walcilmi walbirri wassalaah waaliduhu ashhar min an yucarrafa wa akbar min an yuusaf wa Cheikh Mouhamad bnu Habibullah almashhuur bi Maam Mor Anta Sali Mbakke ibn muhammadul kabir maam maharam wa ummuhu hiya alaqila asayida alkarima aishatu diop bint marxuja kumba diop saahibu muqaddima alkokkiya fi nahwi alarabi mutammima li kitaabay alajrumiya wa qatri nada لما بلغ السيف مصمب أوان التعلم وسنين تفهم انخرط في سلك أجداده وبدأ رحلته العلمية مع الشيخ الخديم fa talaqa minhu suwar al awail qabla taasisi maxdarati daari alalim alxabir wa kaana lahu sharafun adim annahu awalu man daxala ala yadi cheikh abdirahman lo almuallimu alxabir alladi la tasaalu alwiyata cilmihi taluuxu wa nafahaati sacyihi tafuuxu wa xafida alquran alkarim tilaawatan wa tajwidan fi sinni mubakkir wa baashara bacda itqaanihi likitaabillahi wa ila culumi alsharica min qibali axiihi acheikh alxadim awalan summa axawayhi ibrahim faati mbakke almunaqam maam cerno mbakke wa seyd agar maam moor jaara wa shaxala tawaajuduhu maa cheikh alxadim fi mauritania wa akafa ala shuyuux albayadin asanaaqita li yanhala min maayinihim alsaafi wa bacda ma tadallaa fi almay almacquuli walmanquul sharaca fi tariqi alqawmi bi canaati axiihi wa sheyqihi cilman an aljamca waajib wa fi ayaami algayba albarriya bada'a tarbiyatahu ruuxiya calaa yaday sheykh alxadim wa qataca rawaabita alansaab wa awaasira aluxuwa uxuwiya kama qaala sheykh alxadim annahu laa tanfacu wala tujdi cindahu aluxuwa wala alnubuwa wala alubuwa wala alqa'uula illa bilmubaayaca wa qad baalaga fi xidma وإخلاصها حتى ظن البياضيون أنه عبد لشيخ الخديم عشان سمى والقصائد الخديم إن لكل رسول معجزة ولكل ولي كرامة يظهرها الله على عبده المرضي وقد حظى العبد الخديم من ذلك ما لا يحصيه العبد وكتاباته فعلا كرامة عظيمة ممن حياته كسنين, كسنين الشيخ الخديم بينت nafyi wal iqaama al jabriya wa tarbiya wa tarxiya wa ibaadatin xayri munqatia bukratan wa ashiya wa muraawat qiraat al quraan ana ale wa atraafi nahaar hada al jawharu nafiis wal aqdu al fariid laa walan yutiicuhu axadun illa ala yaday amiinin rasiinin caalimin caarifin yaliiqu bihi wa bisawnihi an aydi diyaaci wa taxriif wa tasni tasxiif cayna sheykh zumratan muntaqaba muahala li dalik wa xasa cheikh alxadim li cheikh masamba bi nasq wa tashkil faqad ishtaharat an cheikhi karama azima wa hiya inna alqasaida bi nafsiha xaatabat alabd alqadim bi annaha lam taud tarda katiban axaran xeyra masamba wa kaana huwa aydan huwa almukallaf bi inshaadi alqasaid wa ixtiyaariha yudiiruha bi nafsihi mbokk yi ab tënk bu gàtt ci sëriñ Masamba sunu boroom dafa xéewale jamono may leen ki nga xam ne ramsu la ci tedd nga ak tabe ci guddi alxames ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru Chaabaan ci atum 1300 ca gàddaay ga dëppoo 1881 jàpp 82 ci milaadi gannaaw bi waajur mu sell wa wujjee borom bi subhaanahu wa taala di Maam Mor Anta Sali waaye ci diir bu toll ci juróom-ñaari weer comme ni salasa meloon waaye dëkk bu ñu wax Pataar leer ga fa la feeñee Pataar nekk ci dëkk bu ñu pegg Njaañ ñu gën ko xam ci région Louga sunu boroom tànnal sëriñ Masamba ñaari waajur yu tedd yoo xam ne ñu ngi askanoo ci ñaari famille yoo xam ne dañoo yàgg dañoo cosaanoo ci tedd nga ak xam-xam ak baax ak baaxale waajuram wa siiw na siiw goo xam ne jarul xamle rëy na rëy goo xam ne jarul melal mooy cheikh Mouhamad ibn Habibullah al-mashhur bi Mamour Anta Sali ibn Mouhamadul Kabir di doon maam maam Maharam waajuram wu jigéen wa di soxna su tedd soosa di Aysatu Jóob di kenn ci njaboot ak Mor Xuja Jóob mi nga xam ne moo amaloon al muxaddima al kokkiya waaye sëñ sàmba mi ngi tàmbali am njàngam ci loxo yi magam ju sell ja Cheikh na Ahmad al ci mu dalal ko alquran lu jiitu ñuy taxawal daaray jàngale bu kawe booba di daaray sëñ Abdourahman Lo ji nekk ndaam waaye mu am tedd nga ju rëy rëy moom mooy ki njëkk a dugg ci loxoy Serigne Abdourahman Lo borom xam boobu nga xam ne ba tey xam-xamam mi ngi gilli mi ngi xeej ay jëfam mi ngi xeeñ ci wet gu nekk mu mokkal alquran ci at yu néew waaye jonjoo gannaaw bi mu jonjoo ak magam ja ba wattu alquran ci loxoy Serigne Abdourahman Lo mu daal di dugg ci sàkkum xam-xam xam-xamu sharia tàmbalee ko ci Seexul Xadiim waaye ànd ak ñaari magam yu baax Seex Ibrahima Mbàkke Faati Maam Cerno ak Seex jël na tim ci suyuux yi nga xam ne bi sëriñ bi nekk Sarsara moo ànd moom ci yi nga xam ne ay borom xam woon ñu nekkoon ci Mauritanie sëriñ bi gannaaw bi mu feesee ci wàllu xam la dugg ci yoonu tasawuf waaye tàmba jëlee ko ci magam ju sell ja Seexul Xadiim mi nga xam ne dafa doon wax ne du am njariñ mooy ak mbokkoo wala ak doomoo wala ak jarbaatoo du am njariñ ci moom lu dul ku jaayante wut moo tax sëñ Masamba jaayante woon ak sëriñ bi waaye àggu na ci liggéey ba naar yi jàppoon sax ne moom day eh, kuñu moom la sëñ bi da koo moom waaye sëriñ bi xamal leen ne kenn la ci samay samay sama sama ñi ma bokkal ma mën sëriñ sama samba yonent bu nekk day am mu'jiza waaye nit yàlla ku nekk day am karaam boo xam ne yàlla moo koy feeñal ci jaam bi mu gërëm sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu am ci loola loo xam ne lim mënu koo jeexal mooy te bindam yi karaama la goo xam ne gu màgg goo xam ne ci koo xam ne sag dund lépp mi ngi ci diggante tukkib géej gi ak tukkib jéeri ji ak toogloo gi ñu ko toogloon njaareem lépp ak jaamu yàlla goo xam ne du dagg suba ngoon ak saqoo jàng alquran lu lépp ku ci def loola kon loola karaama la waaye sëriñ bi moo santoon tànnoon ay nit yoo xam ne ñooy taxawu xasida yi di ko bindaat di ko maas waaye mu jiital ca sëñ ma sàmba waaye ñu dem ba ab diir karaama feeñ ca xasida yi wax ak sëriñ bi ne leen ne ko mooy du ñu nangu keneen di bind xasida wala di ko maas ku dul sëriñ ma sàmba kon loolu karaama la waaye kon loola mooy taxawaay bi sëriñ ma sàmba amoon ci diggam ak sëriñ bi waaye amoon ci diggam ak xasida yi ngir njëkkalante waxtu yi bokk na ci jikkoom mooy jikko yu sell jikko yu tedd yoo xam ne mooy jikkoom yooyu moo ñoddi woon xol nit ñëpp mooy képp ku ko gis rek sopp ko képp ku ko dégg sopp ko waaye loolu taxoon it mu nekkoon nitu jàmm nitu mbooloo mépp moo taxoon thème bii ñu tànnoon ngir màggalu Sarsara mu nekk assalaamu fi taalim Cheikh al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain ayuha al ixwatu al wal mashaayixul kiraam waxeyikum taxiyat al islaam waxi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yusaiduni an usharika fi hadihi nadwa bi unwaan assalaam fi taalimi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul an usharika bi hadihi alkalima mawduu هذه الندوة السلام أيها الإخوة له أهمية خاصة بالنسبة للشيخ الخديم وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي يعتبر فيها السلام من أهم ما يجب أن يسعى إلى ترسيخه ويناضل من أجل نشره لأن الحياة لا تستقر إلا به ولا يستمر إلا عليه wassalaamu ayuha saada huwa aslu kalimati lislaam diinillah alladi laa yaqbalu diinan siwa wa huwa taxiyatu lislaam alladi ixtaaraha allahu li ahli limaan wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina fa qul salaam wa bihi yarudduuna ala almuxaatibi aljaahil wa ida xaatabahum aljaahiluuna qaalu salaama wa huwa taxiyatu almuslimina fi aljanna allati hiya daaru salaam taxiyatuhum fiha salaam wa bihi yuxayuuna almawla jalla wa ala yowma alliqaai bih taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam wa bisalaami ayuha alxuduru alkiram rafaa mawlaana alcheikhu ahmadu bamba raayat alislaami wa bihi daafaa an fa huwa radiallahu anhu qaidun ruxaani wa daaciyatun rabbaani wa muslixun ijtimaaci qad tajassada fi taalimihi maana salaam fi ala mazahirih wa asfa suwarih xaytu jacalahu rakisatahu alasaasiya allati shayada alayha binaa dacwatihi alislahiya almubaraka wa nasharaha wa daafaa canha bisayfi aljihaad alsilmi alladi abara canhu biqawlih inni ujahidu bilculuumi wa biltuqaa cabdan xadiman walmuhayminu shaahidu wa kaana yaqul radiallahu canhu wa yunaaji rabbah waliyahab salaamatan wa aafiya wajcal xayaatiya xayaatan saafiya wa kaana min adciyatih ijcal salaamatan taduumu ya salaam liya walil ayaali fi daari salaam wa bi mascuudin wa jaahi bni salaam hab lii salaamatan wa xifdan ya salaam wa min adciyatihi aydan maa kaana yuraddiduhu xiina anshaa madinata tuuba wa daari salaam allahuma innaka xutta zimaami ila al ard allati ixtartaha li wa banaytu fiha daarayn li acbudaka fihima bil imaani wal islaami wal ixsaan wa sammaytuhuma daara salaami wa tuuba tabarrukan bihima fajcalhuma bi fadlik wa bi jaahi wasilati ilayk sallallahu taala alayhi wa sallama saalimatayni ghaanimatayni wa kaana yabtahilu ila llahi daaciyan iyaahu an yajluba an yujanniba almuslimina kulla ma yaxulu baynahum wa bayna al ayshi bi salaam fa yaquul wajcal quluubana ala tawaadudi bila tanaazucin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tanaaf tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri xata nasira muslimina xaashicin wa muminina muxlisina saalixin wa ila janibi almunajat walibtihaal kaana radiallahu anhu yadcu atbaahu walmuslimina macan ila salaam wa yaxusuhum ala iltisaami kulli jaalibin lissalaama wa kaana min awaamiri amartu kulla man yaddaci bi annani raisu bi taacati illahi wa taacati rasulihi alayhi salaatu wasalaam wa an yatruka maa yaksiru xawaatir ahli l ard wa gayrahum xawaatir ahli l ardi wa gayrihim fa inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima wa kaana min aqwali man araada salaamata falyatruki suua lilmusiina wal yufaariquhum adiyatun kathira wa nasaihu adida kaana mawlana ala abdulxadim yuraddiduha wa bisalaam shayyada bina al islaam wa rafaa raayat al islaam wa lamma bana madinatahu daar assalaam alana min al bidaaya anna daawatahu daawatu salaam wa daawatu xayrin wa daawatu afiya radiallahu taala anhu wa arda anhu anna mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci kàddu yu gàtt yi ñu yëkkati ci tuuru kilifa yi ñu àndal bàyyi ko tuuba ci jataayu xam-xam bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaane sëriñ bi ak jàmm sëriñ bi nag mooy jàmm jàmm mooy sëriñ bi ma waxtaane jàmm te sëriñ bi ma ne suta wax sëriñ jàmm mooy ki nga xam ne yàllaa ko tànnal yoonu jàmm ngir mu di ci woote li ñuy wax naan moom ku jàmm kuddam jàmm rek la rek ku mës a jëflante jàmm la jëflante yow ku mës a not jàmm la note ci jàmm la yëkkati la wootee lislaam ba tasaare ko bañ a doonoon ay noonam yu gën a tar wëlbati topp ci ginnaaw ba mu wootee woote bi jaar ci ay barab ba ñëw sanc daaru salaam turu turu dëkk boobu nga xam ne mooy dëkk bi mu njëkk am wane na ci ne moom wootekatu jàmm la booba ñu ngi koy jéñ lu ne sëriñ seeg ceddo yeeg ñi xamul ñëpp jàpp ne daa am lu ko tax a jóg mu ñëw defar këram ne daaru salaam ngir wan nit ñi ne leen jàmm moom a tax a jóg kon ku jàppoon ne leen lay woote xam leen jàmm lay woote daaru salaam kër yàlla ku jàpp ne leen lay wut yàlla rekk ma ñor ci laa bëgg yóbbu ñëpp kër gii këru yàlla ku fi ñëw am nga fi barab woote bi wootu jàmm la ku fi ñëw mën nga fi am jàmm ci loolu la taxawal ba woote woote bu mag bi ba ñëpp wuy si ginnaaw bu mu jànkoon teg lu bare bari ci ay coono yoo xam ne jataay ma ma yewu ko waaye xam ngeen ne lim nekk ci loxoy tubaab yi 1895 ba 1927 génn seeni loxo waaye ànd ak lépp teewut moo doon wax naan afawutu anil a'da'i turan li wa ci man nafaahum li ghayri sarmadan lastu adfahu looloo ko may ndam ba tey dëkku Tuubaa bi nga xam ne mooy dëkkam di capitalu mouridisme tey ndam la ci islam bépp at mu jot ay millions ngi nit dañ fay ci turu lislaam lu ñu wut lu ñu wuute wuute ay pas-pas lu ñu wuute wuute ay naanu teewut ña ngay ànd di bokk ron ron ci ron mbaarum jàmm ak jàmmoo nga fekk ab suufi yi ci pegg salaf fekk ab sunni ci pegg ab chian yi fekk politicien ku ne ci nguur ak ku ne ci opposant ñoo ñëpp ñu bokk di wataay di waxtaan nekk benn loolu ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa ngir jàmm la kon ku koy roy na nga ko roy ci jàmm sëriñ bi jàmm la bëgg ñëpp tënku ci ndax ku mën a def lu baax da am jàmm ku mën a jàmm yàlla da am jàmm ku am wuti xam-xam am ko da am jàmm bu jàmm amul dara do am kon yàlla na yàlla boole defal jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kafaytani xayhaba maata jax-jaxaa minan layaali fa shakartu ba jaxaa muhammadun man xultu fiihi bax baxaa wal aali wa saxbi wa kulli wa bixaar wali yahab salaamatan wa haafiya wajjal xayaatiya xayaatan saafiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi fi daje mbokku taalibe yi mbokk dëkkandoo yi mbokk yi bàyyeekoo senegaal ak mbokk yi nekk senegaal te nekk fii sunu mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk mauritanien yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax ci cant gu ànd ak xol bu rembal ci mbégte ci taw féex bu rëy bii nga xam ne sëriñ Touba defal nanu ko muy daje bu tedd bii nga xam ne bu nu fi jógee ndam li kenn rekk moo ko jagoo muy lislaam bu ñu nee lislaam nag mooy sëriñ Touba ndax Seyxul Xadiim biiram bitéem kowam suufam léppam mooy lislaam di nuyu sunu kilifa yi fi dajee ci turu Cheikh Sidi Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na mi ngi nuyu kilifa yépp di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxob Cheikh Mouhamad al Bachir mi nga xam ne mooy kàddu yoonu murid Cheikh Mouhamad al Bachir mi nga xam ne mooy gëti Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamad al Bachir mi nga xam ne mooy tànki Cheikh Mouhamadou Mountakha cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy kàddu cheikh Mouhamadou Mountakha cheikh Mouhamadul Bachir sëriñ Sidi Mbakke mu ngi jël nuyoo bu mag bu tedd bu am dayoo di ko teg sa loxo yu tedd yii di ñaan nga àggaleeku ko ci sëriñam ba magam ja. cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul cheikh Mahamadou Muntaxa sëriñ Basiiru yow saw tur rekk dafa dëppoog sa jëmm sa lépp mbég la sa lépp teraanga la sagal nga yoonu murit sagal nga lislaam sagal nga sa maam taalibe sëñ Tuubaa yépp la amel njukkal ñépp a ngi sant di ñaan sa fan wii yàlla gën kaa guddal lool ca nga ànd koog Cheikh Mahamadou Muntaxa ak mboolem rakk Cheikh Amadou Mountakha Mbacké yépp ak mboolem njabootu Cheikh Sëñ Tubaay ak taaliba yi mi ngi nuyu délégation bu mag bi nga àndal jóge Touba lim nañ leen léegi waaye sëriñ bi nee na jëlaal na lim boobu tàbbalaat kàddoom ci biir lim boobu gis nañ bi ngay ñëw Mbàkke ñi nga àndal kenn ku ne sa délégation bi tànneef la Touba kenn ku ne sa délégation bi mën naa nekkal sëñ bi fu ne ci juddu ci xam-xam ci yar ak ci teggin sëñ Mbàkke Abdourahman mi wax léegi nit ko koo gis ku ne jëmmi bëskil la waaye kàddoo mooy poam kàddu gi rafet na lool xam-xam la feese kon sëriñ Sidi nee na mi ngi lay nuyu di nuyu délégation bu tedd bu mag bii nga àndal bàyyeekoo Touba mi ngi lay xamal ne fee nga nekkoon ñu naan ab dal la ci yow foofa wàccuwaay la waaye sab dal mooy xolam nee na ci biir xolom la la ubbil ci nga dal mu ngi lay sant bu baax Mbàkke di la gërëm di la ñaanal yàlla na nga yàgg ànd ak Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp lu mu digle rek nga jiitu ca. ñu ñëpp ñu jiitu ci barke sëñ Touba sëriñ bi nee na ñu ngi gërëm mboolem délégation yi fi ñëw ñu ñu tudde bis bi waa kër maam Masamba Mbàkke Anta Ceebo ndigal ma nga bàyyeekoo ci sëñ ma Masamba jaar ci njabootu sëñ Masamba gépp ñu waxtaane ko bis bi ñu xam màggaayam xam dayoom ñu tànn délégation bu am solo jiital ca sëriñ Modou Kara Mbacké moom sëñ Modou Faty Khary mu ñëw fekk si ànd ak Baye Fallou Sarsara muy soxna maam Issa Mbacké mii nga xam ne bu fekkoon na sax délégation bi kenn ñëwul bàyyeekoo ci kër maam sàmba moom képp bu fi dikkee doy kon sëñ Modou Kara sëñ sii nee na mu ngi jël ay kàddu ak ay nuyoo ak cant gu mag ngërmande gu mag di ko teg ci sa loxo xamal ko ne mu Mauritanie gépp ak taalibe sëñ Tuubaa yépp bëgg nañu loolu mi ngi koy yóbbante xalifa bu tedd ba Cheikh Moustapha Massamba sëriñ bi nee na mi ngi nuyu sëriñ Galas Mbàkke moom sëriñ Abdul Karim moom sëñ Fàllu am na fi luy jege fukki fana juróom programme am jeexoon na bu yàgg waaye dafa ne man duma deretu sëñ Fallu liggéey bu toll ne Sarsara nekk fi ma di ko wan gannaaw danaa ko xaar ànd ak sëñ Siidi dem Sarsara ànd ak moom ñëw gunge ca pare gunge ko pare de congrès kon sëñ bi sëriñ bi gërëm na la sant na la mu ngi lay ñaanal délégation yu tedd yi fi nekk ambassadeurs yi ñu fi lim ñépp sëriñ bi nee na mi ngi say baamuwaat ndax seen taxawaay taxawaayu réew la. seen taxawaay taxawaayu réew la waaye délégation bi nag Cheikh mahamadan moom sëriñ Abdoulaat moo ko jiite muy délégation bi nga xam ne bàyyi ko na Sénégal bu ñu nee Cheikh abdulaat nag moom xol yépp daañu dellu sëñ Touba ndax mooy sëñ Touba. sunu mbokk yi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi sëriñ bi nee na gërëm na leen seen teewaay rafetlu na ko ndax bisu diine la ca diine ñépp a ci am wàll kon seen teewaay bii yëg na ko sant na ci sëriñ Bachir Abdou Khadir mi bëgg na ci lool ndax ba teewee ci saal bii ñu lim luy tolloog juróomi réew ñii seeni ambassadeur teew ñii seen ndaw teew loolu dana xam ne jox ngeen bis bi dayoo ca it jëmmal ngeen ko ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm commission d'organisation bi nga xam ñoo nekk fii ci Nouakchott di jàppale sëriñ bi guddeeg bëccëg ndax doolee jël ndox la doolee ab sëriñ mooy taalibe doolee bi mooy ab sëriñ mënuñoo ñàkk ànd sëriñ bi du dem mukk bàyyi taalibe yi waaye dong yi mënuñoo dem bàyyi sëriñ bi kon ñu ànd ak sëriñ di ca nekk ci Mauritanie lim nañ daayira yooyu yëpp du jar ñu ci jaaraat kon sëriñ bi nee gërëm na daayira yëpp bàyyiwul benn daayira ñi nga xamante ni ñoo yor commission d'organisation mauritanien bi di sunuy mbokk di ay taalibe sëñ Tuubaa di ay taalibe sëñ Tuubaa di ay mauritanien ndax Mauritanie ak Sénégal ñaari drapeau la waaye benn population la ñaari drapeau la waaye benn population la kon bu ngeen yaakaaree sëñ Touba seeni maam yaakaaroon sëñ Touba sëñ Sidi di liggéey liggéey bu tollu nii ngeen duggal ci seen doole seen xel seen xalaat ànd koog taalibe yi sëriñ Touba sénégalais yii ba mu réussir mel nii sëriñ bi nee na gërëm na leen sant na leen waaye dawaayir yi nga xam ne ñoo lëkkaloo ànd ak sëñ Sidi bu waxee ñu déglu ko. bu santaanee ñu def bu teree ñu bàyyi sëriñ bi nee gërëm na leen waaye fi ñuy jeexale mooy ambassadeur u bi sëriñ bi nee na ñu gërëm ko ndax ambassadeur mooy ndeyu sénégalais yi mooy bàyyu sénégalais yi li réew mi di yaatu yaatu yaatu ñun génn kër lañ fi am gannaaw kër sëñ Touba gi ñu taalibe yi kër gi fi am muy suñ kër ñun sénégalais yi mooy ambassade ba kon ki fi nekk nag nekkal fi sénégalais yépp sëriñ sëriñ Mbàkke ne mi ngi koy sant te di ko gërëm di ko yónnee cant ak ngërmande daa mel dañoo bañ am contre contretemps waaye na ngeen xam ne xolu sëriñ bi sedd na ca bu xolam seddee xolu sëriñ Touba sedd na ndax digganteem ak sëñ tubaa kenn rek ma ci dox muy baayam kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax te di leen sant di wàccewaat kàddu gu ci sëñ Basiiru mii nga xam ne li mbëkk la Mbàkke ñi nga lay ñaan ci doole sëriñ Touba. bis bii sab bisa yaa ko moom nii taalibe yi toog ci ko ak ci suuf jàkkaarloo gi nga jàkkaarloo ñoom ñoom ñëpp ñu ngi fàggu taxeeg àddina ak taxeeg àllaaxira ñoom ñii ñëpp da leen ñaanal yàlla may leen jàmm dafa leen xéewal musal leen ci cat ba ñu am kàttanu poos am yéene juñ mën a doxal ci barkeb sëñ tubaa ay gor lanu ay murid saadix lanu ñu bëgg sëñ tubaa ngi nii di lay wër mbàkke bàlla seen xol yi sëñ tubaa rekk ci nekk te sëñ tubaa mooy sunu yaakaaru àdduna ak alaxira lu baax àdduna lu baax alaxira jëmmi sëñ tubaa la te yaa fi sëriñ tubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wa radiyallahu taala an cheikhina al aarish billah ahmad bni muhammad bni habibillah cheikh ahmad bamba ridan yashmalu alahu min al ahli wal atbaai wal ahibai maali washiru zukuuni islami islamiya wa taalim asli mumathili saahibi alfaxaama muhammad wuldu cheikh wuldu cheikh al-Ghazali rais al-jumhuriyya al-islamiyya al-mauritaniya al-shaqiq sa'adat as-safir as-senegali ممثل رئيس الجمهورية السنغالية السيد مكي سال سماحة الشيخ سيدي باكي بن الشيخ محمد بن مرتضى ممثل الخليفة العام للطريقة المورية في موريتانيا asxaab alfadila almashaayix walulama walmufakkirin asxaab alsiyaada ruasa aldawaair waltajamuaat almuridiya fi bilaadi sirqin ayuha alixwa aljaaliya almuridiya والسنغالية في موريتانيا أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد fa yus'iduni an uwajjiha ilaykum haadihi al-kalima bismi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké al-Khalifatul aam li tariqatil muridiyya hafidahu llahu taala wa saada min nasrihi wa tamkiinihi wallazi arsalani ala ra'si haazal wafdil aali al-mustawaa li tanfiidihi fi haadihi an-nadwa al-'ilmiyya bi unwaan as-salaam fi taalimi Cheikh Ahmad Bamba xaadimi rasul wallati tunadimuha aljaaliya almuridiya fi jumhuria alislamiya almuritania fi ixtitaami faaliyat alixtifal bi dikra iqamati Cheikh Ahmad Bamba fi mintaqati Sarsara bi Mauritania bi amrin wa mubarakatin min Cheikh Mouhamadul Muntaxa wa bi riaayatin saamia min saaxibiyi lfaxaama raisay lbaladayn Mauritania wa Sénégal acheikh Seyid Mouhamadou Wuld acheikh alxaswani wa rais Macky Sall walkalima chukrun wa taqdir wa tanwihun muwajjaha ila faxaamati rais asayid محمد بن زيخ الغساني وحكومته الرشيدة على المواقف الإيجابية والمعاملة الحسنة تجاه الجالية المريدية خاصة والسنغالية عامة وعلى العلاقة الطيبة التي ترت بكم بطوبى وبشيخ محمد المنتخى الخليفة العام والتي تزداد رسوخا ومتانة min xilaali tawaasul al mustamir wa taawun al muthmir fi l majaali ruuxi wa saxafi wal ijtimaai fal xalifa yashkuru lakum haadihi l mawaaqif annabila wa yad'u li Mauritania raisan wa xukumatan wa shacban an yubaarika allah wa yukallila jamiica masaacikum alxayra allati فنونا فيها لصالح البلاد والعباد رئيس الجمهورية السنغال الرئيس ماكي سال وإلى فخامة الرئيس جمهورية السنغال رئيس ماكي سال على الجهود الجبارة والمواقف النبيلة لصالح البلاد والعباد وعلى علاقة مع طريقة المريدية والخليفة العام الجالية وإلى الجالية المريدية هنا fi Mauritania bi riasati ibni amina al Cheikh Sidi Mbacke ibni Cheikh Mouhamadin al Murtada ibni Cheikh Ahmad Bamba ala al juhudi al mubaraka allati yaqumuna biha fi tanzimi haashihi nashaatat al thaqafiya al naafiu min xilaali nasri taalimi Cheikh Ahmad Bamba wa tawtiidi alaqaati al tariqati al muridiya wa zuamaiha bi Mauritania xukumatan wa shaaban fa juhuudu muqaddara wa mashkuura fa ila al amaam wa ila al mazid min al najaaxaat haza wa inna salaam mawduun nadwa lahu ahamiya xaasa bi ictibaarihi al maslak allasi ixtaarahu llahu taala li Cheikh Ahmad Bamba fi daawatihi al islaahiya al mubaaraka fa atamada alayhi murabbiyan wa mujaahidan wa daa'iyan ila llaahi ta'aalaa bil xikma wal maw'izati al xasana xataa rafa'a llaahu bihi raayata diini xafaaqatan falyakun haazaa salaamu ayyuha al jaaliya shi'aarakum allati tataxarrakuuna fi daa'iratihi wala taxrujuuna minhu mahma kaanat mahma kaanat dawaaci wal asbab fa alaykum bi niyati alxayri wa xawli alxayri wa fiili alxayri wa mulaazamati ahli alxayri li yakuna assalaamu xalifan lakum daaiman qaala alcheyxu alxadim inwi wa qul inwi wa qul wa faal wa laasim taslim mukarriman urumil wula bi kalimi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi bokki réew mi bokki lislaam yi bokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi tey Sëriñ Tuubaa ñu ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci ndigalam ak kàddoom lañ ñëw ngir jotul leen ay kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci moom muy kàddu cant ak i ngërëm ak kàddu ñaan ci bisu tëdd bi di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di Serigne Mamadou Mbacké Cheikh Abdoul Ahad bi nga xam ne ñoo ànd muy suñu kilifa suñu mag waaye di kilifa jataay bi ak mboolem kilifa yu tedd yi nga xam ne ñëpp ànd na ñoom daa ci si waat di nuyu bu baax mboolem waa di teg nuyoo ci loxo suñu rakk ju tedd ji di sëriñ si di Mbàkke bi Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne yàlla def na tey mu nekk fi teewal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha teewal fi yoon Mouride yépp ñu di ko sant di gërëm di ko ñaanal ci barkeb Serigne ndax lii rekk mooy di ko war Serigne képp ku mu boole ci boppam li la war mooy jël sa dund gépp jaayante ko. liggéeyale ko ko ngir jëm koo delloo jukkal donte mënu ko kon ñu ngi koy ñaanal ak mboolem taalibe yéen yi nga xam ne yéen a topp ci ginnaaw ci ndigalul ki fi nekk Serigne Touba yàlla na suñu borom dimbale te sàmm leen dëgëral leen kàttandal leen ba ngeen mottali mboolem yéen nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi yàlla ko yàlla àggale ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo fi teewal njiitu réew Mauritanie di ministère bi nga xam ne mooy lislaam di ko yóbbantam yoo ci ki nga xam ne moo njiitu réew di Seydi Mouhamadou Ghazouani ci teew mu fi teewal ak relation bi nga xam ne diggante Sénégal ak am nañ ko rawat na diggante Touba ak Mauritanie mu xam ko fekkoon ko fi waaye mu jëmbat gën koo dëgëral te li ciy firnde mooy yàlla def na ba mu fi toogee ba nekk ni lépp lu xew ci màggal Tuubaa gi dana sàkk délégation bu mag yónni ko ci sëriñ bi lépp lu xew ci sëriñ bi yàlla nay jàmm waaye bu dee leneen safaan bi itam dana yónni délégation ànd ko sëriñ bi kon sëriñ bi nag ñu ngi koy sant di ko gërëm du ko ñaanal moom itam suñu borom dëgëral ko mott li yéene ci réew mi te li ciy firnde it mooy fan yi weesu rek Cheikh Mouhamadou Mountakha yónni na ci président Mourtani bi di Mouhamadou Khassoani ab délégation boo xam ne Serigne Ahmadou Badawi moo ko jiitoon woon ànd ak Serigne Mourtada Bousso ak Serigne Sam Bousso ñu ñëw ci moom am lu leen sëriñ bi yónnoon ci lu jëm ci wàll université bi bañ accès mu dalal leen gàttandu leen gis leen itam bañ ko waxee la sëriñ bëgg lépp da caa taxaw ba wax leen wax leen sëriñ bi ne ko ni nga ko bëggee li laa ko defee kon ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko yóbbante ak cant ministère bi nga xam moo di nuyu ki nga xam ne mooy ambassadeur senegal teewal fi président Macky Sall moom itam ñu di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam rafet bi nga xam ne ñi jiite organisation bi leeral nañu mu taxaw fi taxawaay bu rafet ndax lii nga xam ne mooy ndaje am Sar Saar bi lépp loo xam ne waroon na ko ci rek def na ko ci taxawaay ak jàpp ak ànd ko yéen ci biir ak ci biti kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbal itam nuyoo ci mboolem ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne mooy mbokki sufara yi nga xam ne. ñëw nañ fii ci juróom-benn réew wala juróom-ñaar réew ñëw fi ngir ànd ak ñun ci bis bi taaral ko jëmbal ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm di fet di diggante Sénégal ak seen réew yooyu waaye di fet di diggante yoon Murid ak seen réew yooyu di ko yóbbantam yoo ak cant ak ngërëm ci président Macky Sall mi nga xam ne moom la fi teewal yor fi kàddoom te lépp muy def rek mu du ko def ci liggéeyam moom itam ñu di ko sant ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax ñëpp xam nañ seen diggante xam nañ cofeel gi sëriñ bi am ci ak jàpp bi am ci moom moom itam cër ba mu war a jox Cheikh Mouhamadou Mountakha ceeg fonk ak cofeel ak dégg ndigalam lépp ñu ko def kon sëriñ bi am sant di ko gërëm di ko ñaanal moom itam suñu borom dëggal ko ba mu àggale mission di gërëm nag mboolem ñi nga xam ñoo bàyyi ko ci réew mi yépp ndax mboolem fu tarixa nekk wala munazama islamiya yépp ñëw nañ fi munazama yëpp ku ci nekk ku mënta ñëw yebal nga délégation bu ñu teewal la comme limoon nañ ko nag jëru dee soit te ministère bi nga xam ne moo la fi njiitu dafa am yoo xam ne moo tax mu xat ba li ci ëpp ma jiitoon wax nañ ko muy suñ bàkk Abdourahmane wax na ko sëriñ ñi topp ginnaaw te war a waxaatit danañ ko jottali muy li jëm ci soññe kon bis bii moom Cheikh Mouhamadou taxaa moo joxe ndigal wax ne nañ ñëw teewal ko ànd ko yéen ngir kon ci ndigalam lañ ko defe kon nag lépp loo xam ne ab taalibe nga koy def te def ko ci ndigalu sëriñ bi rek na xelam dal ndax alxayru fi maxtaaruhu almuxtaaru laa fi lesi nufusuhum taxtaar te màggal gi ngeen def di màggalu Sarsara xam ngeen ne Serigne Touba ko indiwoon Mauritanie ñépp xam nañ ko dafa am sababu sahir waaye am sababu su bati kon seen bis bi bokk na ci bis yi gën a màgg coono kon nag na ngeen ko gën a jàpp gën koo fonk gën koo jox yitte ngir xam ne lépp loo xam ne sëf ngeen ko ko rek te def ko ci pëstéef ak ngëm-ngëm ak dëggu yàlla daan leen ci fekk kon na ngeen ci gën a góorgóorlu ci fexe ba fu mu toll ren bu déwénee mu weesuwaat ndax Serigne Touba lépp lu ñu koy wooteel bu nangoo rek ci la ko xamee kon ñi ngi sant taalibe bi di leen soññ di gërëm ñëpp itam ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom te naka jëkk bañ tàmbalee yoon yi ba nëgëni kenn musu cee màgge te buñ ci tuddee Serigne Cheikh Mariam Mbacke bi nga xam ne naka jëkk ñoo ci Serigne Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne moo xam ngeen ni naka jëkk bañ tàmbalee liggéey ba nëgëni ñooy ànd liggéey bi mu fi jiitu di organiser bi si ñu fi daal ndax li mu yor ci màggal Tuubaa gi dafay jokkaloo lii moo tax at mu jot mu di ko ànd ak kon ba ren ji itam xam na ci moom waaye li muy gàtt gàtt mu ñëw ànd ak ñoom bis bi ci ndigalu sëriñ bi di nuyu mboolem ñeneen ñi ñu àndal ñépp itam te buñ ci tuddee sëriñ Moustapha Diatara tudd ji sëriñ Sohaibou Kébé tudd ci Serigne Mbacke Abdourahmane ma doon wax léegi tudd ci Cheikh Badji Diop tudd ci Ahmed Saliou Niang tudd ci Serigne Mbacke Diop tudd ci Maître Diop ak alaaji yi nga xam ne ñëw na fi ñëw doon ko ci mbooloo mi ak xam naa daa fàtte suñu Cheikh Badji tudd na ko mboolem. kilifa yu tedd yëpp moo tax lim bi sax kon ngeen tudd ngeen ko rek boo tuddee moo Mahmoudane mi nga xam ne mooy kilifa gi rek ñépp tàbb ci waaye nag bu ngeen gisee ma tudd leen ak cant ndax xam nañ ne yitte yu bari na jamono jaxat na seen bopp lañ ko defal nag ndax liggéey Serigne ñëpp ku ci bi ñu ko Serigne bi waxee yàggut waaye nag ndigal moom fu mu la fekk rek da war a bàyyi sa lépp ne ca ba ndigal la jax kon fii ndigal yi fi bàyyi. kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali rek Serigne Touba ne ko indiwoon fii kon dama koy jeexale foofu ndax dafa wax ne man sanna sayri xibba aami ak sasi misla masiri rasa aami jay sasi sabata kawluhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yeku sëyulu ak sasin siwaa jasa man li yaqaada baaxul ma dal najasa kon tukkib gànnaar bi bokkut ak tukkib géej gi tukkib géej gi Sëriñ Tuubaa dafa demoon ngir liggéeyal boroom gànnaar rek dafay ñëwoon ngir li ko suñ borom war a fay jëlsi ko kon nag loola bu yàlla defee mu ñëw jëlsi ko jaar ci ay barab yu bare bare feeñal fi ay xarbaax yu bari ndax ku ne xam na la taxoon colonialiste yi indi ko fi bokkut ak sawus baatin sa nga xam ne moo tax suñu ko fi moom fi dikkee nag di jël si ab liggéeyam lu bari fi la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fekk jox ko wirdul ma ak xuus minallahi loolu kon doonu ko sëkk ci lu jaroon njëkk màggal xasit gi ñu fi jàngalee léegi muy xam ji wa li man kulli saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara ba ca catlaan dama wax ne inna allazina ila sarsaarata qasabu ziyaarati faafu daarayni aw sahra te Cheikh Abdoul Ahad na faafu daarayni aw sahra loolu nag mooy li ñu sàkku ci àdduna ak kon yàlla na suñu borom dimbali ñu teew ati at te suñ borom sàmm ñëpp doole kàttan doole xéewal te yite ji fay àddaale woon suñ borom saafar ko aajo ji fay àddaale woon yàlla faj ko ci barkeb Sëriñ Tuuba ak ci barkeb Cheikh Massamba Mbacke bi nga xam moom ngeen tuddee woon bis bi te loolu lépp di delloo ci Sëriñ Tuuba ndax moom dara jënd Sëriñ Tuuba rakkama di doom di taalibe kon bu ngeen jëlee bis bi ngir fàttalikuwaat dara ci moom. loolu lépp luy gën a taaral bis bi lu koy gën a rafetal kon ngir bañ a guddal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp yàlla faj seen aajo te ku fi ñëw itam yàlla ngay déjee ngërëmu Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi